di te ñetti poubelle mu ngi ci biir kër gi poubelle bu jëkk bi mu ngi tudd achak mooy sikki sàkk poubelle la naf sa ko bàyyi ci biir badan dafa waroon tuur mbalit bi mais daf koy nokkas qad aflaha man zakkaaha waaye waqad xaaba man dassaaha au lieu mu enlever ordure bi daf koy nakkas bu demee bay ba yàgg moom chàkk bi dafay am xet te xet boobu dafay dem ba yéer xel te bu yéeree xel xel gëlëm te bu gëlëmee réer poubelle boobu fokk ñu seet mbiram ñaareelu poubelle bi muy azan wa inna baada zanni ithmun moom it dañu war a évacuer ordure bi moo tax bu ko nafs nës nësalee kenn évacué wu ko mu jur xet moom vann bi te bu juree xet dana dem ba yiir xol jur ci moom lu ñoo tudde mbañeel beneen poubelle bi mooy bu ñuy tudde alwaham mooy hésitation def defle moom itam poubelle la bu ñu évacuer wul ordure bi buñ ko nës ba mu yàgg dina am xet bu muy dégager xet boobu mën na dem ba yiir roox jur ci moom taraddut te mooy muy dengi dengi walla muy am lu muy euh, xaw a werante ndax am na wala amul waaw moo tax ñetti xeet yooyu nag bu ko nafsu waree évacuer te évacuer wu ko da ngay dem ci butigu yàlla mu jaay la cuuraayu bant yàlla am na ay cuuraayu bant am na ci cuuraayu bant boo xam ni ilm la ko tudde xam-xam la tudde cuuraayu bant bi boo ko taalee ci biir kër gi xet bi chak doon yiire xel ba muy réer cuuraayu bant boobu tudd xam-xam mën na évacuer xet bi bu dee vann bi jur mbañeel bi demal ci butigu yàlla mu jaay la benn cuuraayu bant bu tudd mahabba boo ko taalee ci kër gi dana dem ba xetu mbañeel bi doon yiir sa xol cuuraayu bant bi mën na changer xet ba ba cofeel dem ci palaasu mbañeel bu fekkee ni nag dengi dengi bi ngay am la te muy doute boobu ak hésitation boobu nga dem ci butigu yàlla mu jaay la cuuraayu bant bu tudd al yaqin te mooy certitude kuy werante da gisagul lu wóor mais ku gis lu wóor dootoo werante waaw bu ko defee yàlla jox la lu wóor te mooy wax bu rabbaka xatta yatiyaka al yaqin waaw waaw waaye nag bant bu mu ci mën doon buñ ko taalul du jariñ denc bant bi kese kese du tax mu sotti foog nga taal ko te safara dafa metti loolu tax sunu boroom pour mu dimbali nit pour mu jariñoo yooyu dafa fexe ba anaasir arbaa yi mu def ci moom mu seexale leen ak anaasir yi nekk ci kaw parce que bu dul boobu nit ki du man jéggi maddiyaam pour dem ci ruuxaaniyaam parce que madd dafa diis te roox mi nga xam ni moo ko yilif diisul moo tax fokk ñu seet lu ñuy équilibrer seen cohabitation pour équilibrer cohabitation bi moo tax yàlla jël anaasir arbaa yi di leen seexale ak yi nekk ci kaw suuf bañ dañ ko ba tuddee ko suuf ñu miine ko fii waaye fekk miinante nag waa kaw ndax inna samawati wal ard kaanata ratqan ففتقناهما كن سوف نكيفيت نيكي انت مينانتي وون ناك اسبان ندخ مونغي في دي داو في واي جعلنا من الماء كل شيء حي كون تي كل شيء حي تي ريجويندر الحي القيوم كون فلا مينانتيك اسمان ngelaw mu ngi fii di upp ventilateur yaa ngi nii di upp waaye bu ngelaw amul woon du joxe dara waaye dafa miinanteeg asamaan ndax wa arsalna riyaax lawaaqa waaw kon ventilateur joxuñu ngelaw yàlla jël ngelaw saraxuñu ko waaw kon foofu la miinanteeg asamaan waaw safara aussi mu ngi tànge fi waye ci asaman la jóge wa ndax qulna ya naru qulna ya naru kuni bardan wa salaman mu nangu walay xamane ni la ko yilif newul fi ci kaw la nek kon nak nonu yàlla def masjul anasir arbaa bil harakat as samawiya loolu mooy protéger nit pour nëfs du ko mën a écraser waaw ndax bu yi bëggee bew rekk ya ca kaw xëcc ko waaw pour mu bañ lor nit waaw moo tax xam-xam yi téere moo ci mujj téere c'est comme jigéen bi dem marché bu teyee moni ni tey ceebu jën lay togg bu démé ca marché bel luy jëm ci ceebu jeun rek lay mën a lay mën a bu benen bes ñëwee moni ni tey togg ceebu yàpp lay togg bu démé ci marché ba fa mu jënde won jeun ba yap la fay jënd parce que ceebu yap la bëgg a waaw beneen yoon mu wax beneen beneen yoon mu wax bis bu ci nekk ak xeetu rënd rënd ba muy jënd waaw xam-xam yi itam bis bu nekk foog nga xam sa dundo ak sa xel li mu soxla lan parce que jàng la amalul njëriñ jaruko parce que dañu wax ne xam-xam ñaari façon la daain wa muddain xam-xam bi lay woo ak xam-xam bi ngay woote bokkul xam-xam bi lay woo ci yàlla la la jëme xam-xam bi ngay woote danga cay wute pal te pal nekul ci loxo nit ci loxo yalla la nek kon lo doon wutee xam-xamu pal jitu jël ci xam-xamu yalla ba noppi parce que pal ci loxom la nek on koy fateliku gor gi mas mako wax ni ma mu ma ni ko labbayka mu ni ma waxal Mansour ma ni ko am mu ni ma seen buntu àdduna ma ni ko am mu ni ma ci seen tarbiya la nekk bu ngeen taxawoo seen tarbiya li fi seen maam yi bàyyi ngeen sonn ci yàlla dina leen ubbil buntu boobu ubbil leen buntu àdduna waye bu ngeen fi baye bobu nak ni da ngeen di wuti aduna ñaar yëpp ay kon nak na ngeen jublu ci sen buntu tarbiya ba nopi soog dem ci sen buntu aduna mais li indi tarbiya lan la lan motax ñuy defal nit tarbiya damay def tarbiya damay def tarbiya wa sunu daira nangam nangam mais li tangay def tarbiya lan la yàlla ci sunu ci boppam sunu boroom moo bëggul nit am entourage bu ko yées yàlla bëggul nit ku mu fonk di am entourage bu ko yées am na koo xam ni boo ko ëppee cër boo ko ëppee cër bul ko ëpp jikko bu rafet c'est très important am na koo xam ni boo ko bul ko ëpp jikko bu rafet waaw noonu la toll Motax nak ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum bu len jël entourage bu len yes. kon nak ki nga bëgg àndal ta tane ko jéem ko initier ci li nga ko tane ndegem nangu na ko ak it est-ce que ko tane c'est très important man wóoruma ba xam ndax Moustarchid yi maa leen tane wóoruma ñu ngi may sagal leneen rek naan naan ma al murshid mais wóoruma waaye kon ma ñett ñetti lu ma mën bokk moo tax Cheikh Tidiane Sarr wax na wax bu am solo keroog ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel mooy li mu wax ni li oto yi di faral di tudde yàkkalante jël ay clients yekkal ko beneen oto mu ni ci kër sëriñ si rekk la jaadoo c'est très important ñoo mënalul dara nga di leen téye di alku ñuy alku mais jaru ko seetal ku leen mënal dara nga bàyyi leen ñu dem ca moom waaw moo tax ma wax leen ni leen wóoruma ba xam ndax man mënal naa leen dara wala déet ci niwaal mustarchidin wal mustarchidat waaye bala ma leen di yëkkal keneen gis ku tane mu mel ni kon nag Serigne C'est Cheikh moo ñu a mag Serigne Mansour fekk Bobu, moom pour ñu wutal ñu bourse pour ñu dem keer fa Serigne Babacar ne ko n'est pas question mu ne ko seen dire. yépp ngi di ne après ce que mu ree mu ni ko waaw kon li nga yaakaar ba toog fii te sa moroom raw la nañ leen ci nàmpatal rek et leen ci nàmpatal rek mu mel ni damay jot yóbbante yóbbante bi Cheikh Tidiane Sarr moo ko njëkkoon jot Cheikh Tidiane Sarr bii nekk ak man ci kër gi gannaaw gi Cheikh Tidiane saar bi yore institut bi bind ma ko lettre bar ci démb pour gën ma ko yaatal wax ma ni ma Sering Babacar Njaay domus soxna hadisi bu sëriñ Babacar te turu ceer moko ko yóbbante Cheikh Tidiane sar de mu wax mako kon nek set le ci Babacar do soxna hadisi la ak Mansour Njaay buuna mu ni dafa gis sëriñ Babacar Sy mu ngi taxaw mook sama maam El Hadj Mansour taxaw ak maam El Hadj Abdoul Aziz Sy taxaw ak maam El Hadj Habib Sy ñoom ñeent bi ñu taxawee sëriñ Babacar wax sama maam El Hadj ni ko jëlal kàddu bi ne ne maam El Hadj ubbi kàddu gi wax Babacar seen sët ni ko demal nga gis Moustapha nga wax ko ni ko ñun ñeenti maamam yi ñu ngi koy ñaan mu yokk taxawaay ndax li ñu dese ci sax ci moom rekk lañ ko yaakaare dafa tolloog sunu kër nag cat def fi bari ba ma laaj Mansour ay wax de sunu kër cat def fi bari waaye waxal Moustapha ne ko na jël nangam nangam nangam lu tollu nangam mu génne ko sarax ñaan ci yàlla cat bi ci kër gi yàlla génne ko fi bu ko fi yàlla génnee rek conflit dootu fi am waaw fekk jot naa yóbbante bi avant may jot courrier bi ah façon ba mu ko waxee moom Alaaji moom Alaaji Mansour ma doxale ko ci charte bañ ko waxee noonu waaw ah. pour wax leen ni leen ñu ne am na loo xam ne sañuñu ko waaw ah. te moo di lii ñu yor yëfu jaamur la cheikh bi ma nekkal dafa ñëw biir bi ñuy dog ni ma délégué moo ma yóbbante ma ni ko lu mu wax mu ni mbokk Moustarchid diw daf ko yóbbante woon ci yow wax ni mu wax la ni la

bay seet ku may baal ak ku ma dul baal yëfu jaamur laa yor kon nag sañu ma cee mere kenn kon nag ku yàlla dimbale nga dem ba yëg ni am na loo perdre te bëgg ngaa dabaatal la nga fi bàyyi woon boo dellu see fekk ko fi waaw ah, mais nii la toll waaw ah. amna lu nga xamni yow ya dul xam lu xew mi ki nga ko sekkal nelawul ndax bala am jàmm ñi mu ku mu am rek mu yëg ni raw nga amna ko xamni ni mu àndal bu ñu rawul du lek mu neex du nelaw waaw loolu mooy tax ñett yi ñu tudd muy laaj ku ne di ci def ndànk chakk bi vann bi ak waxma bi waaw dama jot benn lettre bu nga xam ni def may yóbbu fu sore lettre bi Malick Mbaye mii moo ko bind mu ni ma lii ma lay ñaan ba keroog may fekki njaase mbay fa mu tëdd ci suuf ñaanal ma yàlla bu yaakaaram bi mu amoon ba boole mag yow yàlla bu yaakaar ba tas te ni nga mu koy ñaanale yàlla na nga ko ñaanale képp ko xam ne mustarshid bu mel ni man la xam nga yonent bi benn nit rek la waxoon ni salmaanu minna ahlal bayt mais yéen ñi fi toog kenn ku ne maa ngi lay ñaan nga gëm ni salmaan nga ci man billahi wal kitaabi nu ma tollu ci yéen nag billaahi wal kitaab bi tollu ngeen noonu ci man waaw Cheikh Ahmed Tijani bii toog seedale ci ndax keroog bi ma Seydi Maodo di ma téléphoné booba moom mu ngi toog foofa mu pare jox ma suma bàjjen Sofi moom it mu yokk sedd ci li Maodo doon wax ak man ñu ma sëriñ Moustapha ma ni ko la béyka mu ni ma man Maodo maa lay ñaan dama amul ku dul sa baay lu ma am Seyid Cheikh moo ko def ci man kon sañ naa la ñaan li ma lay ñaan muy sa kër maam gi bul fi xeeb sa bopp bul fi xeeb sa bopp waaw lépp lu fi ami ji rek boo ko fi deful keneen du ko fi def waaw waxuma pour tagg sama bopp de waaw dama am benn maa ngi koy nettali ci bi benn mustarshida mooy lii seen doom bi doon wax ca cour ba di wax ne man duma yërëm du yërëm soxna kii ne waaw مام شيخ بي فك ما ام بن جيجين مسترشدة موني مام من بوما غيسه نيت دي لين نيانال نان يالنا يالا ويا فاليان بي دما كوي جيبي مون ما يين ميريتي وولين دي ام يين بو وياف يين بو ديس ريك نين ورا ام لي لين نيت ورا نيانال مو يالنا لين يالا تينال واو واو مي واخنا دغ باسكو خام ليغا دون دفا ام سولو xamit li la fi bàyyi dafa am solo waaw Seyid Cheikh Ahmed Tijani ku ko xam doon nu cheikh dama wax ak moom bés baat bu am solo ma ni ko góor gi mu xool ma bëtam yu ruuxaniya yooyu le ma ni ko maa taxaw ca kër jëmmu njaay àdduna yépp teew ma ni la bu ñu naree yàq sa mission ñaanal sëriñ Babacar mu yóbbu ñu ñun ñëpp ma ni ko gis nga wax boobu mu ne ah ma ni ko bu ma ko fàttee it yàlla fàttewu ko na ko ma ko mais yewit it yaay toog ca foire ba ni buñ ko ndaré sacrifier ma joxe sama bop ñu sacrifier ma ma ko yewit boko boo ko naree fàtte it yàlla enregistré na ko ma ko mu nit ñeek yi yëpp li ñu war a intéressé mooy ñaari yi yàlla enregistré waaw man ma yëg ni yalla enregistrer na sama bos yewit nga yëg ni yalla enregistrer na sama le reste on s'en fiche waaw متى احنا <laughs> يلا بعنا <laughs> ستر يلا ياتنا بن مك دف ما وخ باسي ndimbal lu la yitteela ci mu ne ma bul ko wax sa maam yi bul ko wax Serigne Cheikh ma ne ko mu ni mu ni ma wax ko ñaari Fatima yi waaw moo tax bi ngeen ñëwee lii def accolade bi ni mu toll ci man sax xamu leen ko waaw bërki démb lañ ma ko wax waaw ni ma lu la yitteelati rek wax leen ñoom ñaar parce ñooy sa rawxaan waaw waaw bi tax na kon lu ñu def rekk xam nañu lan la waaw may ñaan nag ñépp takkuwaat seen takku ndax yóbbante yi dafa bare te yóbbante yi yëpp it barsax la jóge jógewul fii mi ngi may nettali bu mujj bi du bërki démb la Cheikh Tidiane Sarr bii bu soxna ki ne bii moom it ak yóbbanteem te ci meeru daayira la jaar waaw te moom Cheikh Al Hadj Malick moo ko yóbbante yóbbante bi ni nañ ma ko wax ma defe ni kon nag lu waay taxawoon rek bay boo mu xeeb ko waaw nañu yokk yitte yi nañu yokk jom yi ndax Babacar caw bii bés dañu toog rey ñu Sëriñ Njaay a ngi toog malik Mbaye a ngi toog maxtar Njaay a ngi toog délégué jaxate ngi toog mu wax wax bu ama am solo moom Babacar ci kanamu gor yi ni ma lu ñu mën liggéey ci daayira bi sunu priorité ma ni ko am mu ni ma Cheikh terminé en beauté c'est très important waaw loolu tax dama ca sacrifier wu sax motax bu may wax wax baluko nité diisel dama koy ñaan mu xaar ba xam li tax ma wax lan la da dafa bari wax buy génn nga dafa ni nit ki day xul fekk dafa am lu muy confirmer te bu ko confirmé wul nit ñi fi ñuy jëm du sore waaw Serigne bii dina koy faral di ma ko répété di ma wax ni ma ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa seen chance moo di alquran bàyyilu leen dara lu mu leen war a wax rekk wax na leen ko yonent ci biit lu mu war a mottali mottali na ko mu ni ma waaye ñu nit ci niveau al mustarchidin wal mustarchida sunu chance mooy loo ñu war a wax rekk yaa ngi ñu koy wax waaw ba tax na kon nag ñu nit il faut ñuy jël yooyu di ci encadrer njaboot yi pour ñuy xam fu ñuy teg seen tànk waaw ba tax na kon nag lu rafet ba noppi kenn du ca xalaat di ca def leneen damay fàtteliku daw jéeg soxna na fi mbay ma fekk ko fee ca kër ga gàmmu Tiwaawan bët yaa ngi taa ware ko soxna na fi lan la mu ne ma sëriñ Moustapha ni ko labbayka mu ni ma soxna astu kan ma ni ko am mu ni ma li muy liggéey liggéey na ko ba noppi ma ni ko waaw mu ni ma kon nag ñu fexe ba li mu mérité mu mérité ko rek moo fi des ma ni ko ba ma ko xalaatee du tey

mu ngi wax ni lii la ñëpp doon mébét ci kër gi ay at yàlla nga koy soog a mottali tey ma dafa ni kon nag baat bi ma daan wax te daan ko tibbe ci waxu góor gi baat bi góor gi daan wax ni lu am rafet bu amul woon ñaaw ma defe ni kon nag bu ñu jógee fii sunu philosophie yépp nañ ko tabaxee ci baat boobu te mooy lu am rafet bu amul woon ñaaw kenn ku ci nekk fa nga ne appliquer le principe boobu waaw li ci am solo rek nag mooy bu ci demee sa bakkan waaw demee ci sa xel demee ci sa pas-pas fa tabaarakallaahu te lépp lu xam ni njaboot yéene na ko bëgg ko def te muy sagu mag ñi ku ne war na xam ni du man maa koy gàllankoor waaw gis nga bokkoon na ci li ñu tëraloon pour ngeen xam ko tey mooy université Ramadan bi li ma fi nekkul woon moo tax ñu mujj changer programme bi ndax li ñuy programme woon mooy ouverture bi ñu def ko fii ci Tiwaawan ñaan kilifa yi ñu fekke ko ormal leen moo tax ma ni tey laylatul qadr la te ñoom dañuy def waxtaan ci guddi bi kon bu ñu defee waxtaan ci guddi dafay jur confusion moo tax ma ni nañu def waxtaan ci bëccëg bi pour ñom kilifa yi ñu man def sen waxtaan ci guddi gi waaw waaw waaw ma ne woon bu ouverture bi fii deuxième cour bi ñu defee ko Saint-Louis troisième cour bi ñu defee ko Kaolack Louga quatrième cour bi ñu defee ko Kaolack cinquième bi nar a clôture bi ñu defee ko Touba. waaw waaw loolu la woon laa jël ñoom babakar man mi maa leen ko yónnee depuis Paris waaye ñu gis ni lu toll noonu surtout lu toll ni tuuba bu ñu sañoon buñ koy def fekk ma fi te comme raté na ouverture bi ñu mujj xalaat ni kon nañu continuer def université bi fi ñu ko daan defee bu ñu waree programme yooyu yépp nag ñu seet nu ñu ko tërale ñu jéem ko doxal pour rek rataxal yi ñu war a rataxal yi war a marché marché waaw ba tax na kon nag ku sañu bañ sañ a nangu wa tabaarakallahu waaw jox ko micro bi bopp waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aleykum salaam jox ko son bu baax waaw kilifa gi ñoo ngi jéglu bu baax kàddu yi yëkkati nii xëy na suñ xol a fees rek ak kër teguñu ko ci xel ci xër lañ ko teg ak cofeel gu ci am ceew man mii maag sëñ muuru mais yaakaar naa man naa ne ñaar fukki at yi wallaay foo ne ma maa nga fa wallaay ndeysaan loolu Touba yaa ko moom. Mm-hmm. ku la ko wax ak ku la ko waxut. Mm-hmm. ndax li ngay def ci lislaam mm-hmm. di ko def ci diini ji. sa say ndaw foo ne. foo xam ne boo ñëwee ñu defar la. defal la. foofu foofu doo waroo fa gëj. wallaay ndeysaan dëgg yàlla. wallaay ma lay wax nii. bu dee tàgg xam nga. bu dee leneen xam nga. waaw ndax lii yaa ko def ci ñun. man mii wax yow nii samay mbokk la àndal. sama mbokki tukulóor laa àndal. waaw te ñii fi ñëw ñëpp itam. boo leen doon ndax ñun suñu fi ñëw. kenn gis nga ko muus ñett ñetti fan ngay dund. Mm-hmm. at mi nga muuse. Mm-hmm. mi ngi la xamee. Mm-hmm. mi ngi la bàyyee. nga jeexal yàlla yàlla eggali sa mission. ci barke ndax haada haada bi ruuxin minka. la bi diaayati wallaay ndax inna diaayata. bidaatun wa salaam wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. baarakallahu baarakallahu baarakallahu. maa ngi jot lettre Serigne Mouhamadou Mbacké. عبد الودود كم نكو فاضل وحي فتبارك الله يلا مملين سيدي يلا خمنكم وا تني ممل تي تام لون لا مل تي فتبارك الله كولونيل مالك سي سي بي دا في واخ واخ بو ام سولو تي te bi mu koy wax kilifa bu mag la àndal gis nga man ku nekk ak fi ma lay seetloo am na ñoo xam ne bu ñu àndee kilifa rek nëbb li ci ñoom waaw mais faydaam ci foofu la ma neexe mu togg ak kilifa gi ni ko dafa am loo soxla te ni mën nga ci yaakaar te man kii laa am c'est très important yow man nga ci yaakaar te man ki la am Wa. Lolu c'est très important parce que amna ñu nga xamni bu kilifa toge rek ñu neub li ñu bokk Wa. te kooku nag jaru ba tamna fa tabarakallah ni am xalaat ci yu bare di am yene ci yu bare di bëgg kenn ku ci nekk ubbi xelam ubbi xolam yaatal parce que ñëpp ngi ñëw incha allah waaw ba tax na ko nag bu ma nee ñëpp ngi ñëw waxuma adduna yëpp mais ku yàlla yéene nga war koo jariñoo rek yàlla dina def incha allahu dinga nga si waaw ma tax na kon nag maa ngi koy liir ci lettre bi ma sama mbokk mi yónnee Souleymane Niang bi waaw wa tabaarakallahu boole ko kàddu yu rafet ak addiyaam ak léppam yeesal la mu bëgg a yeesal yépp fa tabaarakallahu bi ma ñëwee jóge tukki itam ñu ni ma góor gi yónnee na ci ouverture bi waaw yónni na fi ñoom xaaji Malick Cissé ak ñoom sëriñ Samba Cissé mu ngi toog ci tant bi ah wa tabarakallahu ñoom Cheikh Tidiane Mbuub itam mook xaaji Ousmane Gajaga ñëw nañ fi ci turu Serigne Mansour ma xam ni yàlla du ah. te itam góor gi la daan dégg muy wax ni yeew fu mu mën a nekk bu ma tëlee ñibbi géej waaw bu defee kon nag nañu jël sunuy disposition te jël sunuy matuwaay boole sunu xel ak sunu xol ñaan boole ci képp ku ñu am foo mën a nekk ci ruq walla ci mbooloo ngay yendoo loolu di ko fanaanoo te moo di li fi mag ñi bàyyi ñu fexe ba fa ñu bëgg mu yegg fa mu yegg fa te bañ ñu bañ ci xeeb sunu bopp waaw loolu rek laa bëggoon tey waxe ko fii ci Tiwaawoon ndax ñun fii ci Tiwaawoon fii la ñu yaroo fii lañu ñu jànge xëy na njàng mi sorewul waaye ñu ngi ciy sant yàlla waaw Serigne Ndiaye bii xalifa mbay mii sedda ci yàlla ku mu baaxal rek baaxal na la waaw ku muy yéene ngay jariñoo rekk fa muy jaar yow moo ko xam waaw wa atul buyuuta nag min abwaabiha waaw ma di ko fàttaliku ndeysaan ku bari woon tiitër la <laughs> temps bi ñu nekkagul ci musarshidin xana nekk di def ay troupe théâtre yow dañ joggé Dakar ñëw ba Tiwaawan ñu di ko invité muy ñëw di fekk ci suñu spectacle waye gis nga yàlla gis nga tay fi mu tok waaw wa tabarakallahu ak sunu dajeye ca Arma Angara sunu jigéenu bopp bi daan ñu invité Adama Sissoko waaw wallaay ndeysaan mu ngi nii ma mama Diop mii wallaay ndeysaan wa tabaarakallahu nekk sedd ci yu bare bare kon nag Sëriñ Babacar Si do desee lu ñu dara waaw kon nag bu dee ku baax fexe na ba mu ànd ak ñun ñun li ñuy def mooy ñu sant yàlla ah ca silmaxa ba doon tàgg Babacar ca Ndar ah. si tu ne connais pas Mbaye demande-le moi il est beau il est gentil il donne de l'argent ah ah alay ndeysaan alay ndeysaan alay ndeysaan ah tax na kon يالنا يالا ديفل نييب سوترا يالنا يالا ديفل نييب توفيق من نوات تي القران ني ماك ني باخ نييب نيغي في تو ماك ني ما في تود نييب نيغي سي تانتي بي تاي وا سيدنا الشيخ موغي سي تانتي بي شيخ الحاج عمر الفوتي موغي سي تانتي بي سيد الحاج مالك ak magam ñu baax ñoo ñu ma tudd fa tabarakallahu sëriñ Babacar nekk ci seen kanam ñu ngi fi toog ak suma góor ga ca ruq ba mu ngi fi toog toog bu wér waaw moo tax na kon nag ñun dara desu fi waaw Abdou Aziz Mbaye bii dafa jóge Canada ñu tase mag moom ca kër Morissane ñu di ma gunge may dem aéroport pour jël sama vol pour ñëw Dakar mu yóbbante ma ci góor gi moom Aziz ñi ma man de dama teel su wuy jur bi muy wuy ji boroomam dafa fekk booba mën dawee ba presque xàmmewuma ko ma bëggoon la yóbbante nekk ci Serigne Cheikh boo demee rekk nga wax ni ko comme man fekkewuma sama wayjur ba mu dem mbërsax te man moom laa am ma bëgg mu ñaanalal ma sama wayjur bi ma fekkewul yàlla may ko mu taxé ci kepparu sëriñ Babacar waaw ndeysaan mais keroog bi ma ko waxé góor gi dama ko mujjé yeram sax wa ndax wax bi sore ci mom wa mu ma wallaay neysan wallaay neysan di wax rek wallaay neysan ñi ma inshallah ñom ñi nekk ci dayre bi yëpp dinaa jël seen way jur yi teg ci loxol sëñ Babacar waaw ah, ah, waaw ah, ba tax na ko nag yàlla nañ ko muurloo